tey dañ leen fas yéene dégtal li nga xam ne moo lëmbee Sénégal ñeel Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi tonge Tandian MC Niass ñeel dossier bi nga xam ne moom moo di Sonko ak Adji Sarr laata ñu indi suñu jàngat ci li nga xam ne moom moo xew ci dëkk bi fi ñu toll nii dañ leen di dégtal kaddu yi nga xam ne Tange Tandian yëkkati na ko kaddu yi MC ak kaddu itam ki nga xam ni moom moo di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ak lépp li ci jot a xew bu ñu noppee doog a ñëw ci suñu jàngatu tay bi dinaa leen ñëw won leen nit kooku mooy kan kon seetaan ne lii ma leen di wax seen jàngat ma teg ci benn affaire képp koo xamante ni yaa ngi wax dëgg ci dossier bi nee nañu état du Sénégal moo la fay parce que ñoom ñëpp ñu leen di waxal dañ leen di fay ñu foog ni ñëpp noonu la alors ko ñu muy état du Sénégal muy keneen kenn ñu ñor muy nekk 7 millions d' habitants du Sénégal kenn ñu ñor muy nekk 7 millions d' habitants du Sénégal 7 millions d' habitants du Sénégal. ñoom de nga moo tax parfois su ngeen yoon nan APR la du APR ba ne ndeysaan comprendre ñu xamuñu si ban business ak ban logique sax laa parce que dama doon nekk gars yi liggéey noppi bàyyi leen si kër amul benn sama bopp laay lijjit seet nga ci âge yi génn moom dangay dox te fekk carrément yooyu daal guune ngay dox Macky moom lii moom dafa leeral kàttan ni deux mille vingt quatre da daal ay bagage am da toogi ndànk jàpp njàmbal waaw la des nag ci fii ak deux mille vingt quatre ku ci mën a profité loo ci mën a lekk nga lekk jeex na waaw mais ñoom pare nañ ci pour commencé gisante gars yi rek mais gars yi ñoo lay faral parce que ñun ay porteurs de voix lañu Thank you. ngi soog a toog ak yow sur plateau mosuma la gis à part dégg la ci télé moo lay wane politique ñii ñoo perte ci I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go képp koo xam ne am nga sama vidéo boo xam ne mooy waxtaan ak Adji Sarr ñaan naa la ko ngir yàlla ak jëmm weer koor bu fekk yow mii nga xam ne yaay toog toog sa toog sa toog sa gis dara nga toog di wax man bi ñu ko ndax su dul dara da nga yaakaar ne lii nga lay wax ba nit ñi ko

I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, never grateful Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath though Cause I can't move on till I let go Pagkakaroon ng buri, basta kagalaw mo. Wala na po akong gawin. Yung kariyano Thank <laughs> you. ni moo di sonkoo ak aji saar li nga xam ne nag moo doy waar ci mbir mu ni mel mooy que ne Sénégal toll nañ foo xam ne jamono ji ñu toll nii képp ku xamal waaye dara rek da koy génne ci réseau sociaux yi te dañoo xewal itam lu jëm ci wàllu wàllum lomotif loole nag dafay wommi sutura gi nga xam ne moom lañ xamee woon Sénégal teraanga gi ñu xamee woon dëkk bi te war nañoo am yeneen i ay priorité yu gën foofu li nga xam ne moom lañ nekk di def jamono ji toll nii ndax Sonko ak aji Sarr seen ko dossier bi dañ ko war a bàyyi mu nekk ci justice mu def ci ab liggéeyam am transparence ci ab liggéeyam moom itam waa justice ndax bëri na ci ay sénégalais yoo xam ne woolootuñ ko ndax dañoo jàpp ne justice su Sénégal pouvoir exécutif di président Macky Sall moom moo ko yor di buum ak buum mi nam ko neexee loolee nag lañu war a mën a def bàyyi justice bi mu def ab liggéeyam ñi nga xam ne ñoo di juge ak magistrat yi ñu bañ kenn ku leen corrompre ak itam kenn ku leen defloo naka sudul noonu bàyyi lépp loo xam ne dafa ñeel ci dossier bi mu nekk loo xam ne justice moom moo koy atte waruñoo jël lépp loo xam ne dafa nekk ab vie privée wu jàmbur di ko jël di ko exposé ci li nga xam ni moo di réseau sociaux yi Sénégal war nañoo tal lekk ak naan gu yomb war a tal courant ak ndox bi nga xam ne ñëpp gis nañ ni mu chéré bàyyi li nga xam ne moom mooy yëfi ñàkk fayda yi nga xam ne moom la ñu nekkee ci réseau sociaux yi ak loo xam ne amulul benn njëriñ sénégalais yi sénégalais yi nag ñoom ñoo war a yeewu ci yenn yi xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réseaux sociaux yi ñu ci ëpp seeni ay intérêt dong moo leen tax a jug seen la ñuy xeexal seen bopp la ñuy kàttal lépp lañ ci nekk di def seen ay poche lay wëññeekuwaat sénégalais yi nag ñoo ciy topp di wax ak kaas waaye itam di ci werante ba léeg ñu ci jëlee sax loo xam ne daf leen cee neexul état du Sénégal ak képp kuy sénégalais war nañoo xool yan anam la ñuy doxalee ngir lépp loo xam ne dafa nekk fii ci Sénégal mu mën a am avancement muy ci wàllum éducation ci wàllum santé ak problème yu bëri yiñ ciy dégg fi ñu toll nii ci wàllum sécurité ak ci bépp wàll boo xam ne rek sénégalais war na cee mën a gis boppam loolee moo war a nekk objectif bi loole moo war a nekk fa nga xam ne war nañ faa teg suñu pour tànk ngir senegal mën a jëm kanam élection législative yi ñuy waajal nag sénégalais yi nañ ci yeewu bu baax a baax a baax xam fi ñuy teg seen tànk xam itam ñan la ñuy jël ngir ñu représente leen ci pencum ndaw yi réew ma bëri na ci ñoo xam ne jamono ji ñu toll nii ñu ngi génn di wane seen bopp ku ci mel ni Papa Djibril Fall mu nekk ñoo xam ne ay exemple lañ fii ci Sénégal nekk ñoo xam ne ñu ñu war a suivre nekk itam ay jeunes yoo xam ne Sénégal dong dong leen ñor développement wu Sénégal dong moo leen ñor itam loolee moo ëpp njëriñ nekk di wax ci ay yu fuité ay vidéo lomotif loo xam ne nekkut lenn lu dul luy pervertir ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal nañu bàyyi xel ci loolu am itam ay objectif yoo xam ne moom mooy tax Sénégal mën a jëm kanam Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar nañu bàyyi xel ci kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te itam ñu am ab liggéey bu rafet boo xam ne moom lañ ñu fi bàyyi loon mbokki internet yu AGT news li moo nekkoon suñu jàngatu tey bi abonné leen ci chaîne bi bu ko defee saa su nekk ngeen di jot ay xibaar yu wér te wóor waaye itam ñu leen di defal ay chronique yoo xam ne liy xew ci actualité sénégalaise la ñuy tibbee ngir mën leen ci dégtal suñu ba jàngat. dig daje beneen yoon ci lu yàggul dara suñu beneen ab chronique. seen jàngat ci AGT news.